lacrymogène ndaysaan moo ngemboo ngemb xonq li noonu moo jàpp waaye moment bi may wax ak fii ci Njaniñ Serigne Ndiaye 2 bu Faas dem na final di xaar combat bi ku daan dem final combat bi mënul yomb génnaan nañ saako yi génnaan nañ saako xanaa loolay géew gi yaatu na jël leen mbot laa ilaaha illallah Rakk Ramazane daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy